wax soxna madame Ndiaye di nuyu sëriñ Mountakha Bachir di nuyu sëriñ Aboubacar Sy Mansour di nuyu sëriñ Mahi di nuyu bépp kilifa diine wala kilifa aadam na ci réew mi di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñuy liggéey ci kër gi Pape Samba Bayri Mané Sow Grédoire ñëpp leen nuyu. di nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi safoo Régis TV ci biir réew mi ak bitim réew Pape di Fall di soutenir suñu gaynde Idrissa Gana Gueye ci li nga xamante ni moom la moom la bañ. loolu dafay tegtale ni boroom valeur la boroom jukko yu rafet la mm-hmm. te yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ni wala taawanu alal ismi wal udwaan yaa ne bu leen jàppalante ci bàkkaar ak noonoo parce que moyen boobu ñu flotte drapeau góor jigéen ñi la bu ko soloon mu ngi jàppalee ñi nga xamante ñooy ñooy dëgëral góor jigéen te bu ko dafay xarab Sénégal nag ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy soutenir boo gisee statut yeeg Facebook yi ñëpp ñu ngi koy bind di ko soutenir liñ koy wax rek yàlla moo ne in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdaamakum yàlla nee na boo leen dimbalee yàlla yàlla dimbalee yàlla saxal seen i ndëgg seeni tànk li muy def ni lu rëy la même dëkk naar yi sax ñu ngi koy publier di wax jikko yi mu am doon na fi def concours alquran def na fi omra ak màkk ay yoon yoon day wan ni borom jikko yu rafet la gis nga nekk ci benn benn milieu moo xam star football nga wala basketteur nga wala mbër nga bu mu tax sa diine nga koy bàyyi ginnaaw. Mhm. diine mooy lépp ci nit. gis nga boo amul diine yow ak bàyyi may yéen a yem. Mhm. bu la doon fay ay milliards milliards milliards bul sànq sa diine. kon loolu mu def lu rëy la yàlla moo wax ni boo ma dimbalee ma dimbali la gis nga dina gën a am fu mu nekk ni Paris dina gën a am forme dina gën a jëm ci karam macha allah même bu fa jógee sax wallaahi na dem beneen club bu ëpp doole Paris. alquran la in tansurullah yansurkum Pape Sidi Fall di am benn invité Oustaz Mouhamed Lamine Ndiaye. mbaa juumuma ci savier vous. merci li nga am na solo bëggoon naa si ñëw sax mais dama xaw a. damay damay am solo. damay bañ juum Oustaz. xadis la yéen tamit sax dafa ne ida maata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalaasin sadaqatun jaariya aw ilmun yantafaw bihi ah wala du saal yad'u lahu. li ma doon làkk ci français ngay wax ci alxuraan. arab laa koy wax ni ah, Pape Sidi da ngay da ngay Pape da ngay jàng de. sa kër nga amoo doctorat bu bu fay na <laughs> ma. bu nit faatoo. Mhm. dafay dagg. ba mu des ñett. bi njëkk mooy sarax bi nga xamante ni bàyyi na ko fi. Mhm. par exemple bàyyi na fi benn garab ci buntu këram. képp ku ñëw di féexlu toog ci garab bi am na fa tiyaaba mm-hmm. wala gasoon na fa teen képp ku ci naan danga fay am tiyaaba wala bàyyi na robinet ci biir këram képp ku fa naan da ngay am tiyaaba wala doon na yàqal dëkkandoom bool mu jóge fa doomam bi di ko def dafay am tiyaaba nit bu faatoo yowmal xiyaama leen nga lay wax yàlla day naan yàlla delloo ma ma sarax ma sarax du wax ma julli ma dem màkk lan la wax law laa ak axartani ilaa ajrin qariib fa asaddaq wa akun na saalihin parce que sarax bi ngay saraxee day nekk ker allaaxi nu mu tàng tàng boo saraxee un million ker un million ngay am hmm? boo saraxee un milliard ker un am alxuraan la waaw ah, ñun de xam naa moom du ñu am un milliard moom ankay parce que <laughs> ah non du xam nga koo xam ne da am problème cent franc doo mën a saraxe milliard daal xam naa la <laughs> même boo ko deful say doom sax waaw ñëw nañu sa ginnaaw fekk nañu nga jiitu. dañu mhm. fexe gas benn teen. wala ubbi benn robinet wala benn fora. wala tabax benn école wala tabax benn affaire rek pour. wala xàllu yoon. wala xàllu yoon. Mhm. moo xam da nga defar tali wala da nga defar loo xamante ni da koy yéene sa waajur bu góor wala sa waajur bu jigéen da koy fekk ci bàmmeelam. par exemple tey fii laay nekk rek envoyé nit xaalis fen lu muy def day yegg si gis naa message. Mhm. te yàlla moo gën a gaaw lool. la ñaareel bi tamit xam bi nga amoon bu am njariñ lañ la wax. nga bindoo benn livre nit ñi di si jàng wala nga defoon benn émision télé boo am soo <laughs> gars yi dugg YouTube di si jariñoo dalay fekk sa dalay fekk sa <laughs> déet waay wallaay dalay fekk sa bàmmeel aragoon ma commencé def lu baax nag wala nga am doom boo xamante ni saa su jullee dalay ñaanal yàlla ñaan bi yomb na yàlla jégal sama papa jégal sama yaay nga def ko nii amiin da koy fekk ci bàmmeel la boo jullee pare yàlla sama papa dalu na sama yaay dalu na dawlu na jégal ko da koy fekk ci bàmmeel la wala chaque année nga xam anniversaire am nga wàcceel ko kaamil yéene ko ko da fekk ci bàmmeelam xoolal benn xul wallaahu ahad rek benn xaaf bi rek bu ko yàlla doon def tiyaaba rek du jeex ba déwén. kon nañ góorgóorlu. ci waajur yi ci waajur yi. waajur yi génn àdduna. nañu góorgóorlu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy way dal dawlu yi. parce Sidi boobu la ñuy jël day day jël taa daal. <laughs> baax na kon ñu bàyyi oustaz euh, Mouhamed Lamine Ndiaye mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum oustaz. bisimilah rahmaani rahiim. Euh, euh, nu wajjihu taxiyaat li. jamii al ixwaan al mushahidin al kiram saamixuni fa uxayi ixwaani al mustaaribina wa al xulafa li al turuq al suufiya fi Sénégal wa nuqaddimu minhum al cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul am li taifa al muridiya wa cheikh Abou Bakr si ibnu cheikh Mouhamadul Mansour al tari al xalifatul am li taifa al tijaniya al usariya al malikiya al usra al malikiya wa nuxayi al jamii fa xususan ulama qanaat 2STV wa nazkuru minhum al ustaz Dame Ndiaye wa al ustaz Mouhamad Lamine Dramé sahib al fadila wa naam naam aleykum salaam de la part de oustaz wa <laughs> alim فأقول في كثير من يعني أحيانا أقول إن علماء ديزيس تي في هم علماء هم علماء علماء ديزيس تي في أستاذ دام جاي Mouhamed Lamine euh, Dramé wa kadhalika xaali euh, oustaz euh, Baye Laye Gaye mhm. wa xaali mm, waaw fa <laughs> naam <laughs> Baye Laye Gaye al mufassir naam naam <laughs> wa kadhalika jamia man yani yani yacmaluuna fi hadihi alqanaat nadcu laha lahum tula al umr wa sixata albadan wa taqabbalallahu uh, uh, yani harakatahum wa sakanatahum bi jaay sayyidina sallallahu alayhi wa sallam uh, nahnu masrurun jiddan kon ci gàttal rek dañuy tàmbale suñu kàddu foofu Pape Sidi mhm. di la ziyaara di ziyaara nag mbokk mi nga xam ni suñu mbokk la ci daara ji muy sëñ Ousmane Niang eh, di ko baax di koo xam ne wax dëgg yàlla bi ñuy jaxasoo léegi yàggul waaye yëg nañ ci moom ak mbaax ak woyof ak bëgg xam-xam noonu ma ko waxee rek ci tàmbaliment bi mhm. eh, nuyu nañ kilifa diine yëpp euh, tàmbale ko Cheikh Mamadou Mountakha sëñ euh, Aboubacar Mansour euh, ak mboolem xulafaaw yi nga xam ne ñu ŋànk diine ji su ko defee nag di saluer ndax dama jëloon intention bi donte sax Ousmane tudd na ko muy act bi nga xam ne ni euh, allahu sénégali al mashhur al maaruf bi Gana Gueye def na ko muy Idrissa Gana Gueye macha allah di loo xam ni fan yee dama amoon mitit Pape Sidi uh-huh. ci bi ñuy wax affaire Dubaay beeg partout dama xawoon a feebar sax euh, ndax waxuma jëlale naa sax sénégalais waaye bi ñu ciy tudd africain yi rek uh-huh. dama xawoon a jàpp lool ma am kersa euh, ndax sama xel dafa dem ci Euh, li sëñ tubaa doon wax ci masaalikul jinaan wala sa yuy jibu sawaadul jismi safahatal fata wasu al fahmi waaw sëñ tubaa di wax di tagg der bu ñuul ndax euh, affaireu racisme daf fee yàgg ba tax na sëñ bi xaw a feeñal loolu ci téereem bu siiw boobu di masaalik di wax ni der bu ñuul du waral nit ki dese Euh, wala mu ñànk ñàkk compréhension. mu war a dese wegu. waaw mu war a dese war a jaay digganteem ak yooyu ba tax na affaire yu Dubaay yooyu bi ñu koy tudd ma xawoon a am mitit feebar ko. Mhm. mais nag bi affaire Gana bi amee nag dafa mel dafa doon médicament bu ñëw. saafarawaat ma waa nga xam ni saa boo amee ñu goree di. ci sa njaboot am na ñoo xam ñu gore lañu ba dee. waaw loolu rek lay wone donc may saluer li mu def di ko ñaanal nag. Eh, Oustaz wax na ko suñu borom moo ne may yattaqillaaha yaj'al la maxrajan na na ne fi mu ne rek yàlla nee na képp ku ma ragal la ma def la nga def ragal ma moo tax nga def ko ma wutal la solution bu mu tiit bu mu ragal léegi suñu borom wutal ko solution su ko defee loolu la ñu ubbee suñu dara nag dara nag bu fekkee coow la ak eh, yenu programme bi nii mhm. dara nag. Mhm. français yi doo dofu jinne jàppul leen. leen di dóor ay dañ bañ xoolal seen <laughs> tous les plans. Mhm. voilà waxtaan yi mën na tàmbali. incha allah. Euh, fa tafadal euh, oustaz al-lughal al ma haza mband. <laughs> comme da ngeen a commencé émission bi di làkk ay arab man damay làkk arab. <laughs> aywa tafadal euh, maanaam ci sama première analyse bu gàtt. fecc hmm. dafa haram parce que musique nee ngeen dafa haram. bon ci li ci ëpp bokk. Hmm. yow oustaz oustaz oustaz 2.0 bi moo naan musique haramul <laughs> bon la majorité des des des des des des oulémas de de dafa haram. Hmm. donc fecc dafa dafa dafa haram dafa dagan musique haram mais moom fecc haram la. moom xam naa sa xaw xanaa xalaat naa sa bos quoi. xam nga le problème mooy faaw bu ñuy indi àtte ci lislaam ñuy def attention. Mhm. ki tëb rek ni fecc dafa xaram def na erreur bu mag. ah ah ah ki tëb tam ni fecc dafa dagan def na erreur bu mag parce que fecc